conscience partielle assainie je tenais vraiment lépp nag ko dund Regardez. Machin baa ngi nii ah. abonné ko ci seen i waaye gis nañu ko parce que at bu nekk unité 22 gis ngeen ko ni ko def waaye lépp maa ngi ci biir osan bi nii non ñu ñu ngi jël osan bi nii policiers kii nañu policiers yi kii am problème ñoo ngi ok ok ok ñëw si waxtaan bi baa ngi nii ni ñu ko def voilà

bi beneen xale a ngi nii bi ñuy sëy beneen xale a ngi nii bi ñuy sëy allo fekk ma fekk ma ci osan bi mu ngi nii fekk ma ci osan bi waaw ñëwal ñëw na fekk ma ci osan bi bu sori annoncé nga ànd ak moom defal nii gis nga